des nations 2017 gaynde yooyu nag nag démb nag dañ leen doon euh, bàkk ca palais président euh, de la république foofee nag euh, daal bàkk nañ leen yëpp nañ leen wax nañ leen nag daal ne Sénégal am na ci ñoom yaakaar loolu kàddu yooyu président de la république moo ko yëkkati moom président de la république wax na ni daal ñi ngi xaarandiku ci ñoom ndam lu rëy Pape Birame Biga Ndiaye ma nga woon foofu. ba bisu gaynde yi yegsee ci màgganu njiitu réew mi boobu fekk na askanu Sénégal yëpp a ngi ond di dooleel seen équipe nationale dàll si yére olof yu yànj lool sunu gaynde yi fas nañu yéene dem Gabon def fa ay jaloore foo dégg mbara wàcc na gaynde la njaay gaynde njaay buur la te fit la am foo fekk gaynde te dafay texe lu mu xas ba bëgg dal di ko teg loxo moom nee na kenn waaru la bàkk ku moom buur la ponk na dooleem ku ko wetti na nga jaar ca fa muy jaar ñun ñii te yéenay sunu gaynde yi ñun ñii te yéenay sunu gaynde yi yéetété lii ndaam lii nañu ko jël ndaam lii lañu leen laaj merci bés la ci bés yi Cheikhou Kouyaté di capitaine équipe bi yëkkati raay réew mi ba ca kaw gannaaw ba mu ko jëlee ci loxo njiitu réew mi président Macky Sall sas na leen sasu rëy ngir bu ñu demee ca Gabon mën fa def jaloore indi coupe bi fii ci Sénégal loolee li tax mu mën a antu moo di gaynde yi fas jom ànd ak njàmbaarte wone xarañte gu sëkk ak bëgg seen réew lu ni mel su amee président Macky jàpp na ni équipe bi dina def coupe d'Afrique bu rëy mu dolli di ñaax Aliou Cissé bi tàggat gaynde yi mu fexe ba dara bañ ko yàq liggéeyam te di ko feddali koolu teen gu mat sëkk tey jii gaynde yi xam nañ li leen di xaar ca Gabon. Macky Sall wax leer na te it ñun jour yëpp wax dëgg yàlla na ñun ñoo ci des waaw président li muy wax wax na ko te def na li mu waroon a def moom ak ministre des sports wàccoon na ak ñun donc ñun jour yi am chance su ñëw tey war a dem défendre couleur réew mi ñoo war a def lépp réewum Sénégal am mbégte ci ñun. Euh, tey discours am daf ñu gën a euh, dooleel gën ñu jox motivation euh, pour que joueurs yi bu ñu demee dugg ci terrain bi waxtu bu ñu toll. ñu ngi xalaat euh, kaddu yi nga xam ne président de la république la yëkkati na ko yëkkati ko ci turam waaye yëkkati ko am ci turi askan Sénégal yëpp mu am solo torop euh, suñu équipe bi nag joueurs yi ñun ñun ñëpp ñu ngi xool xarkanu équipe bi nu mu avancé jamono année yi ñu génn nii ba nga xam ne xam nañ ne ñoom ñu motiver lañu ñu gëm seen dëkk la mais euh, tey bés bi dafa am solo torop parce que chef de l'État taxaw ak yow. gis moo yi nga xam ne moom la war a jël pour teg ko pour gën leen dooleel def naa loolu da leen di gën a dolli fit gën leen dolli euh, motivation pour que li nga xam ne sénégalais bi moom la ñuy mbébét di ko xaar depuis 60 ans euh, yàlla def ko muy lan génn premier tour bi bu ñu génnee premier tour bi nag jéem a bousculer suñu adversaire pour jël trophée bi parce que defe naa euh, fileeg Sénégal trophée bi dugg fi ñu fi dina am toujours luy manqué parce que amaana am nañu ay joueurs yu xarañ am nañu football boo xam ne ñëpp reconnaître nañ ko mais ndam li suñu yéene mooy mu dugg fii si jamono ji ñu nekk ci euh, euh, vraiment nguur yi président Macky Sall. gaynde yi xam nañu li askan wi di xaar si ñoom rax ci dool yi nguur gi def na lépp li ko war ngir équipe bi ñu teg ko si ay conditions yu mucc ayib. tey defe naa euh, am na solo trop ñu dellu si ne. président ak gouvernement am gunge nañ ñu ci éliminatoire yi ñu génn ni donc tamit euh, fii nga xam ne ñu ngi jëm si kan bi lépp yemb na euh, mun naa leen ne déjà lépp li ñu waroon génnee pour préparer euh, fële Congo wàccaayu équipe bi foofu lépp mët na équipe bi suba lay dem Libye xam ne ñun ñoo ko doon jël en charge ministère génnee li mu war a génnee fédération tamit yónnee na ay ndaw foofu ñu préparer terrain bi budget bi tamit. Euh, am nañu yaakaar parce que suba tamit euh, am nañu yaakaar ne avion bi leen di yóbbu tam dina nekk avion boo xam ne dina leen euh, yóbbu directement def naa loolu am solo la donc loolu yëpp ñu koy gërëmee aussi nguur li di leen sant defe naa comme ni ma ko waxee sànq joueurs yi ñu am état bi yoon bi mu leen teg nii gëm naa ne yoon i ndam la te yàlla na leen ko yàlla may. ci bés bi président Macky wax na yéene bi mu am ci sport bu Sénégal rawatina stade yi mu tàmbalee tabax. ak yeneen jéego yi ñu def ci wàllum tàggat yaram lu nu mel li ko war a gën a mën a fësal ak mandargal ko moo di Sénégal jël coupe d'Afrique bi. mbooloo mi président wàcc nga waaye ñii nag dañ leen a war a ñaax xam nga gaynde lañ leen tudde lan mooy gaynde bu rëbbee moom doomu rayu nag gaynde du sooy. su jigéen bee bu góor bi bu ñu séyee bu góor bi bu dee bu jigéen bi dootu am jëkkër bu jigéen bi bu dee bu góor bi dootu am jabar waaye fa ngeen jëm di gabon kan moo toj gabon toj lambar na toj pour sant xaadimu rasool xaadim borom nit ma mamara sali si bu bare si pour sëñ yaay jàmbaar sa jom sa ngor gi xeeboo Sénégal noppi nga ci diine yi diine yëpp tàllal nañ la loxo tey yaa ngi ci sport bi jël Matar ba nii wax naa Matar lu mal yow Matar yaa ko jox doole xale yi bu ñu tiimee bal bi seen sët yi mënoon ci sox yi seen maam mënoon ci sox ba léegi seen sët yi mën ci bal bi seen i maam laaj doon nga lattir buur ku ma doofeen alburi sey na bu ba ngir bu ñu jëlee nag tax rek la fam ba jëlee lu bu kaari bii ngi bu ngeen demee xeex leen bët dugal bii jël coupe bi indi Sénégal président àndal moom teeru ni jërë ngeen jëf ngook ñaan nañu bàkk nañu gaynde yi lépp rek kon ngir gunge leen ci fa nga xam ni fa lu ñu jëm ndax nag foofe ñu jëm daanaka daanaka ab xare la lépp rek kon ñu wuyoo turuk gaynde ngir nag mën fi dellu si ndam li nga xam ni moom la Sénégal yëpp di séntu ñoom gaynde yi nag ginnaaw bi ñu tàggoo président de la république tey ci suba lañu doon tàggu ñi nga xam ne ñoo di seen ay supporters mel ni nag moo doon dool euh, li ñuy wax jaabal bu mujj bi ñu doon euh, amal Ibrahima Mboup dem na seetaani ko supporters yu bëri ñu tey ci suba tàggatu bi gaynde yi doon amal fële ca stade Léopold Sédar Senghor bi juróom-ñeenti waxtu tege fanweeri simili la équipe bi agsi ci pelouse bi ci banc bi Cheikhou Kouyaté toog di seetaan entraînement bi niki noonu maam Biram Diouf nga xame ni biig ci guddi la ñëw Ndakaaru jot naa sax cukki cukki def ay étirement ngir génne coono bi ginnaaw tukki bi mu def yeneen jour yi ñoom tàggatu nañ ci diirub ñaari waxtu ci naaj wu tàng Lamine Gassama di kenn ci gaynde yi jàpp ne lu am solo la ndaxte dafa baax ci seen yaram moom rek nag moo wax ak taskatu xibaar yi mu xamle ni gaynde yi am nañ yéene wane beneen xar kanam ci Coupe d'Afrique bi rawatina ci ndorteel li ci kanamu équipe bu Tunisie mu jàpp ne jongante bu am solo la ba tax na fasuñu ko yéene caaxaane kii di Kalidou Koulibaly moom ba tey dafa gaañu ci om bi waa kër docteur a ngi def seen kéem kàttan ngir gaañu gaañu bi mu amee daal di wér beneen jour bu tàggatuwul ci suba Sadio maane dafa dem réew Nigéria ngir teewe tey ci guddi ndaje mi CAF di amal nga xame ni fa ñuy joxe raaya footballkat bi gën a xarañ ci Afrique Sadio Mané di ko xëccoo ak doomu Algérie bii di Riyad Mahrez ak doomu Gabon bi di Pierre-Emerick mi ngoog gaynde Sénégal euh, doon tàggatoo ak seeni euh, supporters nag euh, noonu ñu leen di ñaan rek yoonu jàmm ak salaam fii ci ndakaaru ba tey ñu ubbi fi ab lël boo xam ne ñu ngi ko jagleel wàllug jën wi doomi Sénégal ak doomi Guinée ak Guinée Bissau di ci waxtaan Lamine Touré. ndaje bi nag ñii di waa acteurs yu yëngu ci wàllu napp gi ñoo ko amal mooy ñetteelu rencontre te fas yéene taxaw tem ngir saafara jafe-jafe yi nga xam ne. ëbb mi ngi koy jànkonteel ci géej gi. ëbb dafa bokk ci xeetu sardinelle yi nga xam ni dañu am solo ci wàllu nappkat yi donc ñu war a def ay études d'ailleurs def nañ ay études sur euh, ci ay dëkk yu mel ni ay Guinée-Bissau yu mel ni ay Gambie euh, pour xool comportement am xam nga changement climatique yi am dafa doon loo xam ni dafa indi ay coppite ci ni jën yi di déplacé woo ci géej gi. dañu gis ne. espèce boobu dafa dafa tasaaroo ci diggante dëkk yi ñu seq léegi dañ ne comme dafa tasaaroo ci diggante yi day dugg fii génn fii génn fe kenn ku nekk mënul demal sa bopp léegi pour ñu mën ko gérer gestion bu bu normal il faut ni ñi dajaloo ñu xool euh, espèce bi lan la joxe espèce bi lan mooy faiblesse am pour ñu mën ci jël ay décision yoo xam ni bu ëllëgee dina amal njëriñ euh, euh, ressource bi ba mu mën a dem ba bu ëllëgee mu dundal suñuy doom. Sénégal ci gis-gis njiitu réew mi ci wàllu suxali napp gi ak xeex lu ñu duppee pêche abusive jël na ay dispositions institutionnelles yu am solo. président Macky Sall yóbbu woon na assemblée nationale nouveau code de la pêche nouveau code de la pêche boobu ñu tënk ko ci benn loi bu ñuy wax la loi deux mille quinze dix huit du treize juillet deux mille quinze portant code de la pêche loolu jën yu ndaw yi muy genre obo yi genre yabo yi dafa am lu ci lu luñ ci def lu am solo mooy dañoo yokk taay ñu koy natte biñ koy nappe maanaam avant code bi dafa wax bala ñoo napp jën yooyu nañu am longueur u douze centimètres mais code bu bees bi dafa wax ni douze centimètres dafa tuuti nañ leen bàyyi ba ñu am dix-huit centimètres pour ñu permettre leen ñu mën a nen ba génération future yi mën a am ay jën yu mel noonu moo tax ba loolu am na solo lool ci euh, nouveau code de la pêche te loolu lépp day bokk ci li aar jën yi aar géej gi ba tax suñu nappkat yi di mën a continuer di napp di am ay jën yu baax te duñu rey espèce bi donc napp bi léegi foog ñu def ci attention foog ñu jël ay mesures moo tax code bu bees bi jóg moo tax atelier yu mel ni am pour que ci su west africaine bi ci commission sous-régionale des pêches jën yooyu continuer di mën a am te changement climatique yi ni mu leen di mën a impacter ñu comprendre ko bu baax a baax ba seen wàññeeku ñu mën koo maîtriser. waxtaan bi nag ndax na indi ay coppite yu am solo ci wàllu aar lépp lu jëm ci wàllu ëbb sardine ak yeneen xeetu jën ci jamonoy changement climatique ndax li ci jublu mooy harmoniser politique état yu sous-région ci wàllu woowee. président de la république xam ngeen ni dafa waxoon nag ñu wàññi bu baax a baax jëndum meuble bi ca bitim réew maanaam meuble yooyu nga xam ne moom la ñuy wax euh, venant li mu bëgg rek moo ñu dimbali artisan menuisier yi nekk fii ci Sénégal ndax nag euh, li président de la république santaane woon ñoo ngi ci yoon woowule Arab Ndaw dem na seeti ñi nga xam ne ñoo yëngu ci fànn woowu. ci biir magasin DMTA bi ay jumtukaayu bureau yu jëm rek ci administration publique yi. artisan wu réew mi ñoom ci seen wàllu bopp defar ko nag. matériel bi li ci gën a bari pour le moment mobilier d'appartement la maanaam mobilier bi nga xam ne waa administration territoriale moom nañ utiliser ci seen ci seen i kër. donc dem na ci ay salon ay chambre à coucher ay euh, bibliothèque salle à manger mais tamit bokk na ci ay mobilier de bureau lu mel ni ay yenn catégorie bureau yi yu bari ay armoire ay bibliothèque yi nga xam ne dañ koy utiliser ci bureau yi. atum 2014 la njiitu réew mi waxoon public bi ñu jagleel rek gën kaa néew pour cent commande publique yi artisan yi lee ñu déggee déclaration boobu dañ ko def comme suñu comme ñun lay waxal parce que comme boo xoolee administration yi ñun ñoo ëpp lu ñu ñu defee déclaration en octobre 2014 ne nañu xool la ñu accompagner artisan yi pour que vraiment taux boobu bu ko dépassé wul ñu àgg ca donc loolu moo tax en 2015 ñu jógee 12 pour cent 2014 dem ba 21 pour cent en donc en en chiffre 2014 nekkoon 163 millions de notre budget mais 2015 ñu àgg ba 263 millions donc loolu bi ñu ko defee 2015 ba 2015 bi jeex nag ci mois de décembre ñu ne nañ toog def jàngat ak artisans yi xool ba xam nan la ñu leen gën a mën a accompagner te dana duñ violer réglementation bi ba daal ñu gën a may part de marché moo tax 2016 bi ñu yokkaat taux bi ñu jóge ci 263 millions 2015 dem 800 millions ci 2016 bi. juróom ñetti téeméeri million kon mooy koppar gi nga xam ne séddale nañ ko ci atum 2016 bi artisan yi muy lu jëm rek ci ñu mel ne ñiy nekk ci SGA ëmb këru liggéeykaayu artisan yu bëree bëri. SGA bi dafa gagné 200 armoires 200 armoires la ñu gagné ma nañ ko ça tourne autour de 18 millions 18 millions et quelques. li mën a yokk suñu liggéey bari waxumal dara waaye xale yi nga xamante ne dañ leen yore ci atelier yi rek bu ñu toogee tëj atelier yi yore ñu liggéey ñu xale yooyu dañuy mujj ci mbedd mi kër yi nga xamante ne fa la ñuy jóge aussi dañuy mujj yëkkatu France bi. liñ fiy liggéeyee lañ bëgg a ñoŋal ñii moom gañe nañ rek marché juróom fukki salon yu cuir. vraiment dañ ñu ko yombalal ñun artisans yi. parce que modalité yi euh, euh, artisan bu fekkee dafa gañee marché am na possibilité mu livrer petit à petit livrer petit à petit mooy lan mun nga par exemple bu fekkee da nga gagné benn cent euh, quantité bi doon cent mun nga livrer trente ñu fay la nga livrer waat trente ñu fay la ba keroog muy mat ñu fay la vraiment loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax. itam di leen ci gën a encouragé ndax itam lii mooy développement. gunge bi nag. lu projet immobilier national sasoo la jóg ngir jàppale artisan yi rawatina ñiy yëngu ci wàll bant wala ñëw ñiy defar ay dàll ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci weñ yi. il que sunu entreprise artisanale yooyu même bu président ne lii yéen ko moom ñu wax leen naka la ñuy jaar ba jot ci donc loolu indi woon ñu ñu accompagner ci 2016 bi. Euh, lu toll ci fanweer ak juróom ñetti entreprise artisanale pour marché wu état yi rawatina marché wu DMTA bi nga xam ne moom lañ dénk mbirum commandement meuble ci fanweer yi ak ñett yooyu yooyu fukk ak ñaar ñoo ci gañe du tolloog ñaar fukki loo donc loolu doon résultat bu am solo du yem fii nag ndax mbëbët bi mooy àgg fu sori fii yépp ren def nañ 800 millions mais suñu objectif déwén mooy dem ba au moins gën ngaa néew ci 1 milliard 100 donc je crois que lu war a mën a nekk la en tout cas dinañ ci travailler ci yokk quantité yi ci yokk catégorie bi ñuy commandé ci gën a xool yeneen type de bureau yoo xam ne adapté na ak expertise suñu artisan yi. waaye lépp duñ ko wékk waa DMTA kilifay projet bi bëgg rek ñëpp jàpp ci. directeur général ASP woo nañu ba wax ni lépp luy bot ak lépp luy matériel bi nga xam ni ASP yi dinañ ko soxla te suñu coordonnées yi mën nañ ko def bëgg nañ ci liggéey jox ko suñu entreprise yi formé lu mat fukki cordonnier ak juróom ci nan la ñu defaree botu militaire ak yan norme ak yan sécurité lañ la war a mun a àndal. loolu mën nañ ci dolli euh, ñeenti téem lu toll ci ñeenti téeméeru millions yoo xam ni ministère de l' enseignement supérieur ñoo ñu woo ñun mobilier national ñu ñëw ñu ne ñu dafa am ay. matuwaay yu ñu defar ci wàllu espace numérique ouvert dañu bëgg lépp lu fay bant lépp lu fay équipement ñu jox ko sa artisan yi. lu jëm ci wàllu tàggat bi wàllu organisation ak xam rek fi ngay jaar ba am ci marché yi projet bi rek di wéy di ci dox ngir ay commandes yoo xam ne dina bëri waaye it dina ànd ak qualité. loolu doon rubrique économie ñu leen koy indil ay bis yu nekk aram ndaw di leen jox dig daje incha ci yeneeni i euh, jamono préfecture ak commission yi daanaka ñëpp fay wutali ngir rek mën a am carte d'identité Ndeye Aïda Dia dem na seeti commission yooyu. ñi ngi wéyal yeesalaat carte d'identité yi fii ci sous-préfecture Dakar Plateau mën nga fi inscrire ak fépp foo mën a jóge wala foo mën a dëkk. bind mi question. volonté personnelle la volonté personnelle la te bu ñu seetee actuellement bu njëkk benn commission moo fi nekkoon nit ki mën na fi yendu sax du bind te bu ñu seetee nit ki bu amee deux de temps maximum trois heures de temps mën na ñëw ñu enrôler ko bu bindu te bindu benn benn deux heures de temps ci bés bi nga war a am benn carte d'identité bu lay dimbale pour fukki at yaakaar na waroo xaar ba nga toll ci ay tolof tolof di ko wuti parce que tey kenn mënut a kenn mënut a réglé ay kayit amoo kon fii xaw na wuuteeg yeneen centre yi nga xamante ne dañ fay nemmeeku ay rang ñu metti lu jege ñetti téeméeri doomu aadama kon dinañ leen inscrire bis bu ne yemook ñeent fukki junni nit ba ñu tàmbalee ba léegi fii nag diñ fi def lu mu bon bon ñaari waxtu laata ñi lay jël. tey jii nii quarante lañ lay njëkk a laaj waaw parce que mooy mooy bunt bi kon boo ko amul daal daanaka légaloo daal ci dëkk bi waaw mais loolu daal sant yàlla la daal. vraiment nag bu ñu ñëwee fii ne gis nañ ci yokkute parce que yàgguñu fi daal. citoyen naa comme ñëpp maa ñëw déposé bu wote jotee ma wote. kilifa yi nag nee nañ carte d'identité yi ñu yor dinañ leen wéyal ba 31 mars ñi nga xam ne ñoom dañuy xaar ca càppandaw ga kon nañu bàyyee loolu xel ñi fàttali rek ne ku bëgg a yeesalaat kartam gi faw nga indi photocopie carte bu yàgg bi indaale itamit photocopie carte directeur bi te